carte d'identité bu de 5000 francs par personne te jamonoy Ablaye Wade 14 milliards de 7 millions carte d'identité kon différence bu bëgg monsieur le ministre au niveau de Touba ku ne xam na ni Dakar population insécurité fan toj fa téere yóbbu fa 74 millions toj nañ fa ascenseur yi yóbbu fa xaalis bu bari dem nañ gaaru Dakar bes bi toj ko yóbbu fa xaalis rey fa ay nit loolu lépp lu ko waral moom manque de sécurité wax nga nga ni pare ngeen pour def ñee ñeenti commissariat au niveau de Touba ma bëgg a xam loolu est-ce que mi ngi ci mille 2020 bi ak fan ak fan ngeen ko bëgg a def bu fi nekkul kañ ngeen xalaat ak fan ngeen war a jël xaalis bu def loolu au niveau de Mbacké commissariat ba fa nekk ku ne xam na ni ëpp na ñaar fukki at ndax léegi yéen pare ngeen pour def commissariat au niveau de Mbacké ba pare jox leen ay matuwaay ak ay jumtukaay yoo xamante ni moom la war a liggéey di jaajëfal polis national ñi nga xamante ni bu ñuy tëdd nelaw ñu ngi ci terrain bi te ku ne xam na ni amuñu ay matuwaay amuñu ay jumtukaay dafa manqué may laaj aussi yan moyen ngeen bëgg def. pour que jagleel police nationale pour que ñu mëna a ci jafé jafé yi nga xamanteni ñu nek bo boo ay rapport dañuy fanan bu set té ñafa nek dañuy jindi aj est ce que mënu leen def ben programme bo xamné fep fo xamné police ma nga fay liggéey ñu leen di añal comme ni ko président Ablaye Wade doon est ce que lolu mënu leen def lolu ak leen taxaw pour bu waccé ñu mëna am lu ñu yob monsieur le ministre liste tagan moy élection yi nga xamul won bëgg waxoon naa la fii ci amendement bu ma defoon nga def contre amendement ngeen programme 2021 au plus tard ñun nag la ma waxoon rek askan wi ma fal ma nekk conseil département jiite fa commission habitat domanial le 1er décembre dinaa déposé sama démission à conseil département pour que ni delloo naa askan wi li ma faloon ndax man du ma sukkandiku ci loo xamante ni ay nomination wala yokk mandat monsieur le ministre ma dikkaat ni xam ni peuple bi nga xam ñooñu toog fii bi nga fi ñëwee daam yi 2017 2018 bii passé ñi fi nekk ñëpp benn jafe-jafe lañ am ak jàmbat muy ay commissariat est-ce que yéen pare ngeen pour def équipement commis équipement boo xam ne pour nga ko jubleel police ak ñi nga xamante ñooy sous yi ak préfet yi ndax boo demee tey Mbacké préfecture ba fa nekk jamono Senghor ba léegi boo demee tey Touba ko sous-préfet ba fa nekk fa fanaan yaakaar naa ne rus na fa sax dugal gan kon yaakaar naa il faut que ngeen jël benn montant pour def équipement boo xam ni dañu ko jagle directement ñi nga xam ne ñooy police yi ak ñi nga xam ne ñooy sous ak préfet yi ndax nit ki bu fekkee amul fu mu dëkk fu baax amut yaakaar ci li muy def lu dul volontaire la sax mais amuti moyen loolu il faut que dana xaw am ay jafe-jafe monsieur le ministre des finances retraite police retraité yi est-ce que dama confirmer 2 milliards yooyu dana dugg ci mois de janvier wala du ci dugg. je vous remercie.